bismillah barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu soxna euh, Diagne Cissé Diallibatul Maraaxib sopé murid mbagam Cheikh Ibrahima Fall euh, moo teew fii ci euh, liggéey bi nga xam ne ñun waa alali Cheikh ma Fall murid bu mag ba daal di seen Cheikh Jëmb yàlla fi yàgg lool ci ànd ak wér euh, ñoom ñoo koy liggéey fii euh, ci kër euh, xalif général de Baye Fall Serigne Cheikh Fall jëmb borom daara yàlla fi lool ci ànd ak waaye lu jut lool ñuy nuy di ziar ñëpp rek waaye di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général de Baye Fall yàgg fi lool ci ànd ak wér ñoo xam ne lañ bokkal daara Alal Cheikh bu mag ba ñoo xam ñu féete ci réew mi la ñoo xam ñu féete ci biti réew njiital Seydina Omar Seck nooru daara ni général murid bu mag ba maam Cheikh Ibrahima Fall nangu ndigal waaye jàmbaari Serigne Cheikh Fall jëmb ah, di leen jaajëfal di leen nuyu baax a baax tey nag mel ne kon ñu euh, miire nañ miir bi nga xam ne moom moo waroon kër gi te jamono yee ñu ko doon ah, daaneel ñu daaneeloon ko le 11 novembre ci atum 2020 ah, ba tey jii nag ñi daal di euh, fas yéene daal di song li nga xam ne moom mooy mbaar mi nga xam ne mooy mbaaru ndogu yi ñuy euh, yi nga xam ne Serigne Cheikh jëmb bu xalifa général des Baye Fall yàlla na fi yàgg loolu tànd ak wér moom lay toggee ndogu yi nga xam moom lay jébbal Serigne Mountakha Mbacké xalif général des euh, Mourides yàlla na ci bokk yàgg lool euh, te ànd ak wér ci biir loolu nag euh, tey ñu fa yéene ñi daal di ñëw daal di ànd ak waa ñi nga xam ne ñoom ñoo waa ahlul ahlu murid nag euh, di ab daahira boo xam ne euh, ndeysaan Serigne Sadex Ñang yàlla suñu borom dool ay leem tas ci barkeem euh, ci njiital ab xalifaam Serigne Jili Ñang ñoom ñoo xëy tey ci njiital ki nga xam moom moo jiitu daahira bi di maam Lamp Fall ñi teew fi nag tey doon mool mool yu mucc ayib yi ndeysaan ñeneen ñeneen ñi ngi ci biir di déj li nga xam ne moom mooy poto yi nga xam moom moo tiimoon mbaar mi mbaarum ndog yi nga xam moom la ñuy yeesal nii waaye daara gi di alalu Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ba daara sëriñ Cheikh Jëmb Fall yàlla na fi yàgg ci njiital seen Omar Seck nooru daara euh, seen pas-pas ak seen yéene mooy yeesal lépp loo xamante ni dafa nekk ci biir kër gi waaye lu wër kër gi lépp dañ ko fas yéene yeesal ba mu mucc ayib buñ paree ci miir yi pare na Ah, bu buntu kër gi noppi na buñ xam ne moom moo nekk ci buntu ginnaaw bi nga xam fa la toggee lii ah, bi super bi maanaam super bi ndax buñ toggee ndogu yi fee dañuy togg beneen super boo xamante ni Serigne Seye Jëmb Fall xalifa général fi ak loolu tànd li nga xam ne moom mooy néegi soxna yi ah, ci biir lool nag lépp loo xam ne daal lu mat a yeesal ci kër gi danañ ko yeesal ba mucc ayib pare ay lampe nañ énergie solaire maire incha allahu rabbi nga xam ne fayum courant moom sëriñ bi dootu ko defati loolu nag moom mooy pas-pas ak yéen bi nga xam ne ah, daara gi daaloolu Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ba moom lañ fas yéene am ah, kon xam naa ci biir lool rek ah, ginnaaw buñ jaajëfalee waa site internet bi di Assalaamy TV seen taxawaay bu rafet sëriñ Falilou Sil suñu xarit suñu soppee macha allah ñoom ñëpp dañu ngi leen jaajëfalee ñaar jàmm xam naa dañuy dem fee rek ci biir mbokki taalibe yi daal di leen di interroger ñi nga xam ne ñoom ñoo fi xëy ku ci mel ne Maam Lamp Fall jiite waa daahira bi di waa ahlul murit ñu ñëw jàppale fii euh, ndeysaan ci liggéey bi euh, ci jàppale liggéey bi nga xam ne alali Cheikh Ibra Fall yi murit bu mag ba dara Serigne Cheikh Jëmb Fall yi dafa ci ànd ak wér ñoom ñoo ko fas yéene liggéey muy kër gi tey nag ñu daal di ñëw daal di xëy daal di ñëw rek ngir mool mool yi mu am solo lool kon xam naa euh, sa sama caméraman dañuy daal di demaat fee rek ci ci moolkat yi nga xam ne ñoom ñoom lañ àndal liggéey bi ko defee ma interroger fa ñi nga daayira seen seen yéene ngir teew fii ci buntu kër Serigne Cheikh Ibou Fall xalifa général des Baye Fall borom daara ji fi ci Paleen Mbacké Bawal ñaari Baye Fall la ilaha illallah ah, di santaat sëriñ bi bu baax a baax a baax waaye di yëkkati suñu kaddu rek di ñaanal Cheikh Mountakha Bassirou sama borom ko fi lool te may ko ak wér waaye di ñaanal sëñ Cheikh Jëmb faal ak képp ku mbokkal maam Cheikh Rayma Fall sama borom yàggal ko fi te may ko ak wér. di am mbégte bu baax a baax teew ci liggéey bi yàlla dafa dogal liggéey la boo xamante ni bii dama naan mboolem jullit yëpp ko bokk liggéey boo xamante ni bii képp ku naan ashhadu an laa ilaaha am nga ci cër rawatina ñun murid yi waaye rawatina ñun Baye Fall yi yàlla dogal it kenn ku ne xam na ni bu yàgg ba tey ñu ngi fi liggéey ci kër sëñ bi ñëw naa fi ci biñ koy door waaye booba ak léegi yàlla dogal ndigal yi nekkoon tax dellu siwaat gi xawoon naa jafe lool waaye ba démb ci ngoon yàlla dogal Seydina Omar général euh, woo ma fekk boobu it ñu ngi ci jumaa ji nga xamante ni bi moom la sëriñ bi bàyyi woon ñu doon ko yeggale ñu doon ko yeggale ba jamonoy tàkkusaan Seydina Omar mi woo ma euh, bi ma woowee ne ma ah, fal yaram ah liggéey bi di ci la nekk nii sëñ bi de mbaar moom mu doon wax dañoo toll ci war koo tàmbali waaye nag xam naa mu yitte woon it mool yi ku ko mool bi mu waxee loolu daa ne tey xelam day ci yéen ñooñu la dem. suñu jàmbaar yu tedd ja di Serigne Sadikh Niang jaasi lislaam lii képp lañu ñu xamal ñun xamuñu leneen ba tax na itam bi ñuy génn suñuy kër di ñëw ci liggéey bi itam euh, euh, xamuñu luñ fi liggéey nu mu toll jéemuñu koo xam en tout cas nu liggéey moo toll rek bu soobee Sëñ Tuubaa ba la ñoo dem danañ ko liggéey ah xamuñu itam ñaata fan lañ fi am xamuñu ndax fi la ñuy fanaan xamuñu ndax fi dañuy yendu xamuñu ndax dañuy gudd lañ fi jóge loolu loolu ñun du suñ du suñ problème en tout cas ñu ngi ci suñu ginnaaw suñu ginnaaw jëriñ lépp lu nu sant danañ ko def lépp lu nu digal danañ ko def xamuñu it nag kañ lañ fii jóge xamuñu liggéey bi nu mu toll ñun loolu suñu yoon newu ci ñun daal waajal nañ ñu ngir liggéeyal Sëñ Tuubaa fépp fu ab liggéey am itam lañu cay métti mooy ñàkk yëg waaye buñ ko yëgee lépp lu ci sunu waar danañ ko def. bi ñu ñëwee danoo laaj ana lu ana lu ñu liggéeyee ñun ñi mool yii moom lañ leen sant ngeen war koo liggéeyee bi ñu ñëwee ñu laaj ana lu ñuy moolee ñu ne ñu kat dana am mooli plein dana am kër waaye dana am mooli urdi ñu laaj plein bi ñaata la ñu ni ñu ton la yaa ngi dégg ton bi nag ci la nekk ni daanaka li ci des àggul lii rek moom moo ci des mu yegg bu noppee dañuy jàll ci kër bi bu kër bi noppee léegi ndax kër bi moom fukki saaku la bu noppee soog a jàll ci urdi bi urdi bi nag cinq tonnes la moom lool loolu la Seydina Omar wax bu bu soobee yàlla it fas nañu yéene ci darajee bi defee ko ni ko bëggee ci doole maam Cheikh Ibrahima Fall kon nag Eh, yàlla di sant sëriñ Touba dina ñaanal sëñ Cheikh Jëmb yàlla bàyyi ko fi àggale yéeneem ak mébétam yéen ñii nga xamee ne yéen a fi nekk soxna Diagne yor liggéey bi ak sëñ Seck mais ñu ngi ñaan yàlla taxaw leen kartanal leen te jàppale leen te àggale seen yéene ak seen mébét noo ngi sant bu baax di jëf jërëjëfal sëñ Sadex Ñang jërëjëfal sëñ Sadex Ñang jërëjëfal sëñ Sadex Ñang wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh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 na xam te nii damay wax ne saa loo xam ne liggéeyub ndey jotalu ci nit barke baay jotalu ci nit ndimbal sëñ bi képp moo ci may nit mu ne liggéey bi ñu liggéey fii ci kër Sëñ liggéey boo xamante ne ni sëriñ bi euh, fi mbaar mi nga xam ne fay togg ndog yi yi muy yóbbul sëriñ bi te lu jiitu loolu ñu nekkoon ci miir bi nga xam te ni moo waroon kër gi ñu euh, dindi woon ko def ci yeneen miir yu yees sëriñ bi def nag miir boobu <coughs> yàlla dogal na wér na ba wóor na bañ monté port bi la ca des mooy monté làmp te bu ñu defaree mbaar pare nañ ko monté ba soo Cheikh Ibrahima euh, amoon ndigalu nag yeesal kër gépp ci diggante miir bi ak mbaar mi ak kees soxna yi yàlla dogal nag première partie bi di miir pare na ñu jublu ci euh, mbaar mi mbaar mi nag ñëpp xam ñu tey jii ci mool yi lañ nekk muy mool yi nii mooy moom mooy fondement bi euh, yéen a ngi gis suuf si ak xeer yi mooy ci wala mool urdi yeeg yëpp fi mu toll nii noonu ñu doon wax léegi waa kër sa dex ñang yi si njiital sëñ làmp ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di xam ne ñun ak ñoom ñoom benn lañ euh, waa kër Sadekh ñan euh, Sadekh ñan ahlu murit ak waa àll Cheikh Fall benn lañ euh, ndax ñoom ñaar ñu ñu ñaari kuréel yooyu dañuy dem leen te ay xidma waa kër Sadekh dañuy am xidma waa àll Cheikh Fall ñu dem waa àll Cheikh Fall ñu am xidma waa kër Sadekh ñëw kon looloo waral bi ñu amee yitey mool ñu woo leen ci lañ ñëwee ñoom. kon ñu leen sant bu baax di ko teg seen seen loxob jëriñ si ñu Lamp Fall Ahlu Murid mu àggal ko ci mboolem ko ne si jotaay boobu ah, di woo ñëpp nag ci liggéey liggéeyu Cheikh Rafal bi kon noo ngi ci woo képp koo xam ne si ne daal fas nga yéenee liggéeyal maam Cheikh Ibra te da nga ne maanaam bu fi maam Cheikh Ibra nekkoon ma liggéeyal ko kon ki fi nekkal maam Cheikh Ibra boo ko liggéeyalee bu ne laa jaajëf am nga jaajëfi maam bi Ibra. di wax ne nag eh, dafa am kàddu gu ma ñor soxna Diallo ma mooy képp koo xamante nii woo nit di ko laaj dara ci euh, liggéeyu Cheikh Rafal bi ci turu àll Cheikh Rafal ñun yóbbaluñ ko ak képp koo xamante ni joxe na numéro ñëw na ci euh, ab fenn di laaj ci liggéey Cheikh Rafal bi ñun yóbbaluñ ko. ki boyul ba noppi bëgg a ruur nag faaw nga ñàkk sab tool ba kenn du ko ruur kon looloo waral kàddu yi ndax numéro bi nga yi nga xam si ne maanaam ñooy jàll ci daara ji nga xam si ne lu ci waaye tàbbal mu ñëw ci liggéeyu sëriñ bi. soxna Diagne Cissé coordonnateur bu daara Al Imam Cheikh Ibra dana ko jàllale. mbaar mi eh, tey lañ ko commencé rek tey mool nañ ba pare mel na ne gis ngeen poto ya fa nekkoon di ñaar fukki poto ak ñeent yu fa taxawoon yëpp daaneel nañ ko gas ko ba gis daj fondement fañ ko sudee woon dindi ko. wala na kon yu yees taq lañ fi war a def nga xam te ni kon liggéey bi taxaw fi ñu waxee comme ñu ngi mool feer yi ñu ngi ñëw feer bi mi ngi ñëw léegi ñu war ko commencé takk euh, tey wala suba. takk feer yi euh, mooy pata yi ak dee ak CNAC yëpp moom kiy takk lay takk rek bu fekkee liggéey bi amul taxaw bu dee yi suude woo rek dañuy commencé dañuy daal di gas euh, fondement yi commencé ak ça moom commencé nañ bis na ko tey. ci lay profité di nuyu waa Aliou Seye yi nekk ci bitim réew mi su ma ko tegee ci loxol si Mor Ndiaye. xaritu taalibe yi sëñ Abdou Lahad Ndiaye sëñ As Ndiaye dañuy motali mbooleem ku bokk ci àll seen faal te nekk ci bitim réew euh, ñooñ ñi ngi leen soññi baax mbooleem fu waay nekk tey dund Cheikh Ibrahima Fall ak fu nekk dund sëriñ bi rek ñi di di mëntuwaat Cheikh Fall ñu lay soñ ci liggéey bi euh, bàyyi wuñ kenn nag euh, ndax liggéey bi liggéeyu Cheikh Fall la liggéey yëpp nag yëpp liggéey Cheikh Fall yëpp am njëriñ waaye fi ñu toggee ndog yi jëm kër Cheikh Sëriñ Tuubaa moom foofu moom kenn ku ne war nga faa barkeelu ndax sëriñ bi day wax ne maam Cheikh dafa wax ne képp koo xam ne umu nga ba mënoo am dara kum maa maanaam nga fekk fi ñu toogee sama ndogo yi nga xool fañ ko fañ koy taale saxaar sa fa mu jëm nga taxaw fa ba saxaar sa dugg la nee na kumte googu dañ ci yow kon asamaan nag fañ koy toogee ko fa jëf kon nooy mel xam nañ ne jege jege jege sëriñ bi taxu ci am dara jëf rek ci may dara moo waral ñoom suñ ku mel ne suñ mëgay ak suñu Omar ak soxna ñoo ñoom kenn mënu leen ci jëf ji ñu jëfe sëriñ bi dama bëgg ñu xam ko ndax ni euh, jàpp nañ ci seen doole jàppa ci seen xel jàpp ci lépp sëñ mbay waañ mooy mbay sëñ mbay xéewal fa mu nekk ñëpp xam nañ ne féet na fa ànd Cheikh Fall sëñ bi jaañ ñu ngi koy ñaanal tawféex kon ñu xam ne moom it gis nga ko ni mu demee ñu ci kafe gi kon xam ne kenn ku ne xam nañ ne ñoom jëfal sëñ bi rek a wóor sëñ bi laa nekk ak falaay fanaan ak falaay dend ak yooyu yëpp xam nañ ne jëfal sëñ bay wóor moo waral bàyyiwuñ ko kenn ñooñu nag kon ñu ngi leen di ñaanal sëriñ bi yokk seen wërsëg wi yokk seen fan wér seen i cër ba liñ bëgg a liggéeyal Cheikh Ibra ñu ñu ànd koog ñoom dañ ko ak Cheikh Ibrahima Fall. waaw soxna Diagne loolu li ma ciy teg mooy dañuy wax ne gone day bu toppee mag mu doon dara faaw dana doon dara te fu mu nekk des na ko dar te ñun li ñu dar li ñu dar xam nañ ne daraa ngi fi. kon sëriñ lu la mu wax xamal na ne maanaam ku ko yeesal yees xam na ne sëriñ bi kat saabu la te xam na gàkki mbubu ma mi fóot te ku fóot kon koo xam ne si ne maanaam bëgg ngaa dem da ngay dugg ci luy dem waaye nag jageb gaar taxuta ami gan ku wàcc xam nga fa nga jëm ñun Cheikh Ibra mooy kinu moom waaw kon nag loolu moom yeesal yees daal nañu xam ne baatu yeesal yees loo yeesal mu yees kon nañu xam ne ku bëgg dara da ngay def dara ndax kat gaalkat bu taxawee war a jéggi boo ca defee dara bu gaa yi dee jël lañ ca defoon da nga jël la nga ca defoon waaye foo deful dara boo demee doo fa jël dara te sëriñ bi kat nawut ñay xeebul picc ku ko neenal la bañ lu ci waay def lu nekk daal des na la ko ci defal te luñ ci def mu àgg ci sëriñ ba Cheikh Ibra képp la ñuy jëfal loolu daal mooy mbir mi ku yeesal yees kon nañu fexe fas yéenee yeesal ndax nu yees loolu rek mbir mi yor suñuy dërëm di ci def ndax nu ami ngërëm te xam ne dërëm yu bari yi fekku la bàmmeel waaye ngërëm lu bari dina fekk bàmmeel kon tak maanaam rek lañ bëgg a mucc te ku jëfal sëriñ bi damay wax ne kat ki nga xam si ne kum layal nga yaay fexee la ànd ak moom ba bu la layalee nga yaay bu mat avocat kat boo ko amee da koy jàpp ko mooy sëriñ bi nag foo def dara am fa dara waaye foo deful dara doo fa am dara kon nañ fi def dara ndax nu am fa dara gannaaw di sant gannaaw ba ñu ñaanalee Serigne Cheikh Fall jëmm mu yàgg fi lool te wér wala lancim di ko ñaanal di wax ne kaddu gi ko dégg fa ma toog na nga wax Serigne Cheikh Fall jëmm yàlla na fi yàgg ndax euh, koo xamante ni lu mu gën di yàgg njëriñ yi di gën di yokk lépp moom nag Fall jërëjëfati ñu ngi ñu ngi lay ñu ngi lay ñaan nga yàgg fi te rek. di nuyu nag waa Alioune Cheikh Fall gépp euh, di leen su ma jëlee nuyoo euh, Sénégal gépp jiital Euh, Baye Mamadi Kébé sax ci njub euh, day motali ñëpp bu ne Sénégal su ma jëlee waa réew ma ci siñ ko ci sox si Mor ñaar day motali ñëpp rek kon maa ngi leen di ñaanal ba yéene ji ñu bëgg a yéene liggéeyal ko Cheikh Rafal ñu def ko ni ñu ko bëggee euh, di wax na nag na ñëpp ñaan Serigne Cheikh Fall jëm yàgg fi loolu foofu laa yem jërëjëfati jërëjëf kon ñi nga xam ne ñoom lañ toogaloon ci tay jërëjëf waa ahlu murit bu sëriñ Sadek Ñang ci njiital maam Lamp Fall ah, waaye ah, waa daara Alaaji Cheikh Ibrahima Fall ci liggéey bi njiital si naaw ma ni général murit bu magoon Ibrahima Fall nangu ndigal waaye jàmba moom i jur waa Touba Daara Xudoos ak mboolem ñi nga xam ne ñi ngi topp jotaay bi ci Assalaamy TV ñoom ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a bu rafet ndax jamono junee saa su ne liggéey bi dooree ba léegi ñun ak ñoom ñooy ànd liggéey bi di ñëw di jël seen ay image boole kook Euh, di ko euh, di ko di ko yaatal ci réew mi ak ci biti réew muy lu am solo kon ñoom it euh, yàlla ngeen bëgg a yegg yàlla na fa suñu borom ci doole xaside yi kon ba tey ñu ngi soñu boole mbokki taalibe rek fu waay ne ci réew mi ak ci biti réew rek ñu ñëw ànd ak ñun liggéey bi yaatal nañ ko ndax sëriñ bi nee na na yaatu te ubbi nañ bunt yëpp kon ku lu koo xam ne rek am nga pas-pas ak yéene ànd ak ñun liggéey mën ngaa dugal sa numéro sa addiya ci numéro jëwriñu daarek di di Omar Seck moo nekk ci carte d'identité bi Omar Seck euh, numéro am 78 534 89 11 78 534 89 11 Orange Money la waaye Wave la wala ba tey euh, ci numéro euh, coordinatrice bi di secretaire général technicienne daara ji di Diagne Cissé ci numéro téléphone bi di 77 649 95 88 77 649 95 88 moom it orange money lañ waaye wéef la wala ba tey ci numéro euh, porte parole daara ji euh, di euh, ba di Mbaye Korea moom porte parole daara ji waaye di waa Kër Massar en même temps ci numéro bi xam ne numéro Ecobank la numéro bi nekk 10 01 75 19 00 01 10 01 75 19 00 01 ci turu Mbaye Korea di porte parole daara gi daal loolu Cheikh Ibrahima Fall Murid bu mag ba kon ñëpp rek ñu ngi ñaanal jëm fam yàgg fi loolu tànd ak wér waaye mboolem ñi nga xam ñi ngi teewlu ñoom ñëpp rek ngi leen ñaanal saxan datan wa barakatan wa xaafiyatan fi daare ni ci barkeb murid bu mag maam Cheikh Ibrahima Fall jërë ngeen jëf wasalaam jërëjëf borom Touba